seen muy seen liggéey ci ci ci nit ñi ànd ak ñi ko àndal ñëpp rek ñu indiwaat ak bi ñu daan indi ñoom nee na ñu lay ziare di la ñaanal di di di yaakaaroon mu sëriñ bi ndax xam nga ne li koy dundal moo sëriñ bi loolu dañ koy xam ne ci xool ci dem te loolu loo xam ne moom wér la loolu nag ñu koy jëkkal sëriñ bi di delloo dénkaane waat boppam dénkaane waat njaboot seen baaram yi nga xam ne day loxoom day bëtu nga xam ne lépp loo xam ne da koy def lu teg moom bëtu ngir mat loolu moom ñii la koy def ba nga xam ne moom la ko bëgg bu nee moom la koy dénkaat te di sàpp suñu ñaan ko te dimbale seen xarala bay bi tëdd ñu suñu soxla si wàllu nee na ñoom di jàppale bu baax a baax ndax xam na ne lépp loo xam ne am na ko bu ko soxla si soxla la ko bëgg lépp la koy def moom ndax xam na soxla si fu mu xam na fu mu jóg ndax fa mu fa xamoo dara du du na tànn te fa mu jëm muy jëm ci ci ci kër maamu monsieur Baye Fall loolu te muy ndigal ndax ba mu ndigal sax doon du am dafa nekk saa boo xamee ne dañu ci ndigal xamal ne bëgg xamal ne xol seen bu buy xamal ne cër ay cër mën a fekkee ba ñu bëgg ñu mën ko loolu nag ñu ngi sàkk suñu daara bi seen dimbale ko bu baax du boobal ngay dimbale nga xam ne dañ ñaan ñëpp a ngi si hmm. ñu ngi tàmm ci jëmmam ji ñu ngi tàmm ci jëmmi njaboot waaye ñu ko ñaanal ba mu ci mbëb ñaanal ko suñu borom gën ko nga ko xéwal ñaanal ko suñu borom yokk aw fanam bu baax a baax ndax yàgg moo am na sax la ñuy wax sax ndax yàgg moom am sax ñaari fan wala ñaari fan sax yàgg waaye nag sax lañ bëgg ba mu jël sax na lool dañaa sonn si tamit dañ koo ñaan moom nag luñ naan wax waxaat lu bëri wax soxna si daa neex waxal ndax ki nga xam ne ni ngay gis dana ci tëgg daanaka boo moom moom nee na mel lam daal indi nag indeeti na lu raw la nga xam ne moom la daal di leen bi ñëw bu mat bi leen bi leen dugal lay wàcc nañ ko ci gétt indi waat na soble si biir wér bi indi na laaj bi indi na ndox bi indi na laaj lépp loo xam ne moo koy togg indi na ko moom mi dafa wax ne am na loo xam ne bi da koo bëgg di toggal sëriñ bi ba ba dëgg dem xam-xam bëgg loolu bëgg ko nee na xamul loolu du toog ba bis ba tamit mu ne da lay doon indi añ da lay teel a indi añ bi sëriñ bi seet nu mu ko bëggee ko defee comme loolu li mu waral bi ci boole coow ceeb dafa xam ne dañoo toll foo xam ne ñoom tubaab mooy dox te yow kat mi maanaam léegi nga xam ne moom mi nga jagoo weesu na sax ak ñoom moo waral muy dina jiwee bu amoon lu weesu gineem dana ko indil seen xam naa loolu bu doon lu a am na kon dana ko indil te loolu ñu nangu la ñu leen la loolu nag yàgg na ci ndax mu doxe tamit moom noonu lay nee naa moom day bëri na góor yoo xam ne gàcceel ni aw dox ndax doxin muy doxee weesu na sax loolu lu wér la te xam ni te képp koo xam ne am ngaa moom xam ne loolu rek lay dox saa bu xëyee de foo seen soxna Awa Gueye de xamal ne ci yitte sëriñ rek lay dox foo seen soxna Awa Gueye ngir jëf ñu rek ci lay dox foo seen soxna Awa Gueye lu mu am ngir ñu ko sëriñ rek moom la kon nag awa loo bëgg da nga ko am sab yàlla lépp loo bëgg rek da nga ko am noo ne ko euh, soxna Awa Fall waxee nag di waajuram di dooy maam Cheikh Ibrahima Fall nee ko sëñ Cheikh jëm mii xalifa général de Baye Fall moom it waxee nee ko lépp loo yootu lu da ko am noo sa kanam noo sa gannaaw noo la ko sëñ Sidi Maxtaar daan wax it awa boo dee ne ko noo ngi ci kanam noo ngi ci gannaawam bu mu jàq bu mu tiit lu mu bëgg dana ko am ëddee dana ko yomb. loolu it d'accord noonu ci nangu noonu ko ndax gis nañ ko bu wér ndax at mu ne lu mu fi indi bu déwénee na nii dund ko ëpp ndax gis ngeen ren ni mu ko defee. yàlla dogal na ban demee ci kër sëñ Modou Habib Mbakke moom moom moom sëñ Abdou borom dër bi. ban demee lan fekkoon na na ko soxna si wax ne ren damaa bëgg a soppi sama ëddee yi mu ko yót ban demee nan nan ko fekke sëriñ bi fekk nan waxtaanee ëddee yi ba sëriñ bi teg teg maanaam am ku mu war a yónni li ko soxna si indil moom daa naroon làmb ci poosam dem yónnee ji ko ba wax ak ndaw li ba ndaw li ñëw toog yàlla dogal noonee ko soxna si euh, bëggee woon nga xëy nee na noonu noonu moo ko gënal yàlla dogal nu ñëw fekk sëñ bi moom it programme loolee wut ndaw yónnee ko yónneen boobu foofu soxna aw foofu indi loole na ko sëñ bi bëggee woon. na ko soxna sëñ soxna aw defe indi ko te woowu sëñ bi téléphone. sëñ bi woowu ko téléphone. kon loolu xam ngeen mbirum sëñ Tuubaa la. ak mam Cheikh Ibrahima Fall mune ni ker ba ñe ba wacce sëñ bi ne li da la doon yoni ndaw la ni tok waxtaan na ma ak bu na war ko jox lim ko wuti ci soxna si indi na ko soxna si ba ma wo dafa mané dama bëgg sopp ëdë yi ndax xamna ni tok gi ñu tok manam neew gën wut xaramu baax ak la ci war and lepp indi bam ñe fekk na sëriñ bi waxtaan ak talib bu war ko jox lolé manam mu war ko wuti te sëriñ bi téléphone sëñ bi. téléphone soxna soxna si téléphone wu kon xam nga loolu mbirum baatin dëgg la mbirum sëñ Touba la te man nii la ma ko soxna soxna ay waxee woon ne ma sëñ bi ko léegi gënal ba nii ma nag sëñ bi seereel na ko seeree na nag maa ngi nii ndaw laa ngi nii toog waxtaan nañ ko bu yegg mu war ko wuti kon nag taalibe ak soxna aaw moom ak nangu ak nangoo jëfam nangoo sonn si yoonu Cheikh Ibrahima Fall wii gisuma ko ci man sëñ Cheikh jëm maa ngi nii ci kër sëñ Cheikh jëm taxaw nee na ko yow yow li ma wax it ci digg kër sëñ Cheikh jëm bi laa taxaw di ko wax nee ko yow jigéen di man góor. waaw sant nañ la gërëm nañ la. Mm-hmm. am na boo xam si bee màkk la ko yónnee décor ko ko ne ko lii maa la ko gërëme. loolu dina yomb kon nag ñun ñëpp nan sant yàlla te xam ne xéwal yooyu yëpp dana wa wala ngaat ba yegsi ci noonu. da nga taxawal taxawalal ko sa maam ju tedd janga xam ne li mu jëf ci yoonu murit ak fi ko fekk ak fi mu ko indi te muy xëy te muy jëm kanam ba léegi képp kuy nit rek teg nga ci sa bët sa wajur wu tedd wa soxna astu di nekkoon nit koo xam ne ku am cër ci maam Cheikh Ibrahima Fall la woon ndax am cër munta weesu eh, Sëriñ Tuubaa tudd la maam Cheikh Ibra Fall jur la yar la ay njabootam yar la cër mënut a weesu loolu Sëriñ Tuubaa tudd la maam Cheikh bi Fall jur la mu ne su ko weesu te yëmu ca nag ba ndax ba ko waajuram ya defalee loolu ba noppi dafa jël nag warteefam digganteem ak doomi Sëriñ Tuubaa yëpp muy góor muy jigéen ku ne mu am lu mu seq ak yow muy góor muy jigéen nag nga xam ne kon tànki waajuram wu tedd wa sañcoon béréb bu tedd bii te sa waajur wa di soxna astu nekkoon koo xam ne jàpp Cheikh Sidi Mokhtar ca ba dara xewul kenn séentuwul sax ni mu nekk sëñ Touba dana ko doon wala mu nekk sëñ yooyu yëpp sëñ Baara kenn séentuwu ci dara di ko jàpp ba mu xëy nekk sañ Baara di ko jàpp ba mu xëy nekk sëñ yow mii nga yàlla dogal euh, mu jiitu la nga ñëw sa wajur woo bu daan def benn nga def fukk naga ni démb la sa la sa lépp ñëw ci sëriñ bi te wóor na ma ne toogaayam bi séentu ko woon ndax euh, la nga doon la ngay jëf sa maam ju tedd di maam Cheikh Ibrahima Fall moo tax nga di ko jëf sa wajur wu tedd wa di soxna astu moo tax nga di ko jëf Cheikh Sidou Mokhtar taara tax nga di ko jëf kon séentu woon ni damay jëf ci moom ndax bu ma wootee mu ñëw ndaxte képp koo xam ne bëgg na lu baax wala bëgg naa xañtu fu lu baax nekk boo wootee fii ñu wusi la fi ndax feneen foo ko woote woon itam ñu wuy si la fi waaye wooteeb Cheikh Ibrahima Fall bu nekk ci kër Cheikh ci kër quartier bii ñuy tuddee quartier maam Cheikh Ibrahima Fall fi la gën a yelle ndax yaakaar naa ne ay këram boo kër ya ciy mag kër gi fii du bari kër yi fii ëpp mboot kër gi fii du bari place bii kër yi ko fay mag bëriwut kër yi ko fi ëpp mbóot bëriwut ci ci ci ci ci li sunu maam Cheikh Ibrahima Fall sañ ci kon nag xam gi nga xam sa maam ja mu nekkoon nag sëriñ tubaa fii du ko dundal. sa wajur wu tedd ba di soxna astu ñëw fi dund wéel loole du ko dundal mu wan la ginnaaw nga wëlbati ko summeeku jóg wéel loolee du ko dundal te woo dara nag woo dara ndax li ma wóor mooy ne ndaw ñëwee ci sëñ dem démb ne la ndaw demee feneen ak feneen ak feneen téyewoo dara wóote woo itam ngir tabax wóote woo itam ngir jëndi wata woote woo ngir soli mbubb wóor na ma ne boo solee mbubb dañ la ko jëndal te nag lii ñu lay wax ñun ñëw nañ fii ñett yoon Cheikh Sidi Moukhtar yebal ñu fi kon fii du ñu fi gan njaareem gi am nañ fi 1977 ba 1985 noo nga fiy jàng wàll si nañ fii ba tey kon fii duñ fi gan li ñu fi defe naa dina ci am loo xam ne xam nañ kon moo war a Cheikh Sidi Moukhtar ni bis bii tey kenn na doyu ko ci kudul jëmmi boppam joo xam ne day jóg teew nga toog mu toog te it nee na loolu li mu ci jublu mooy Cheikh Sidi Moukhtar daf daan wax ni am du xont day fori ba ñew bu xolé doom yi ñu reg ñew fi xol la nga xol ko sa aajoom faju ci ci bisub maam Cheikh ibrahim Fall bi waye sa aajo faju ci bisub maam Cheikh ibrahim Fall bi loolu moko andi fi waye man de li ma la ñaan bi sama bàyyi ne la wek legi moy barke sëñ bara ba ak wërsëg ba ak sañ-sañ ba xam-xam ba ak barke sëñ Sidi Maxtaar ak barke sa maam Cheikh Rafal bu muy din yalla na digel bopam mbacke yalla yàlla dara dara fakkastal ci barke bi sa baay bu baax ba bi bi ma koy waxtaanee fii boobu xamul sax Mbàkke da nga fi yow mi waxtaan si Sidi Maxtaar hmm? dafay nekk nag ba dem te ñu bari xamuñu ko waaye Mbàkke noo ñaan yàlla na sampal boppam yàlla na téyal boppam waaye dafa ma ci Ndakaar aw mu ne ma da ngay foo ne ma ne ko man di kër gi mu des dama koy toxu mooy tax ngay ah, kër gi faxat léegi ci man ah moomoo ko mu ne kër gi ah, am kër de ca suba ñu woo ma maa Fatia mi ànd dem domaine ñu jox ma kër mu di tabax de te son ci sonn ma ñëwaat ne këru Touba ma ci xam mu ne ma dana sotti moom moo ma bëggal boppam du man maa ko bëgg de moo ma bëgg moo ma bëgg man de mbàkkee sama bopp ak lu ma am ak lu ma jur mi sa loxo la ma bu ma rek aw ma dara lu la dencal lépp yaa ko moom sa alal laa man sa alal mbàkkee dëkk bi moom rëy ci man lool waaye tànk nga dox ba ci kër gi lépp yàlla na aw fan yal na ak wér ci barke sa maam Cheikh Rafal ci barke kenn bokkoon sëñ Sidi ma nga pël ma ca maa ngi ñaan ci barke sëñ Baara mu difi la boppam téye la boppam ak ko àndal ak ku la bëgg nag ci barke maam Cheikh Rafal yàlla nga yàlla taxawal la yàlla na yàlla dij la yàlla taxaw la yàlla na yàlla la Mbàkke tey jii teral nga soxna su Faal sa bàjjan teral nga ko de teral nga Cheikh Rafal sa maam jëfati sama xol sedd na guy barke Cheikh Rafal waaye leeram jëmmi Cheikh Rafal sa xol dana sedd nga toog ba doyal jërëjëf Seex Ibra Faal jërëjëf Seex Ibra Faal jërëjëf Seex Ibra Faal Lamp jërëjëf soxna Astu Faal moom soxna Njaay Njare jërëjëf soxna soxna Awa Gaye yàlla na nga fi yàgg de wér nu ànd ko ak yow ci kàttanu yàlla ak maag yonent barke Maam Seex Ibra Faal Lamp waa daayira Tuubaa Sicap Mbao Miftaahu Nasri ñooy dellu si waat di la nuyu di la siyaare di yokk cofeel ci seen diggante di yokk taalibe gi di yokk kóllëre gi bala ñoo wax dara nag ñu ngi lay siyaare sa ñaar ñi nga xam ne dañu fee bàyyi ko te ku ne xam ne dañoo soosoon ci yow Xalifa Faal sama rakk ji yàlla suuf woyof ci koom ñoo ngi la koy siyaare Njaay Loo mi nga xam ne fu mu beetale mi wax dara soxna Awa Gaye lañ dëkk tudd ñoo ngi la koy siyaare yàlla suuf woyof ci koom gay yàlla na nga fi yàgg te wér ñu ànd ko yow nag di ko liggéey ndax liggéey bi liggéey kat tubaarkàlla masàllaa li ma la léegi man Baye Fall naa waroon di aalu ca daayira ba waaye man duma aalu mbàkke mbàkke yi ñooy aalu kenn ku ci nekk gën bëgg bis bi kenn ku ne ëpp sa morom bi yéene ci bis bi te dara warulu ko lu sab taxawaay ndax la nga wax ci sama bàjjan ba ba kii dem moo ci sama bàjjan ba tubaarkàlla taxawaayu góor la taxawoon fu Seex Ibra Faal teg tànkam sama bàjjan ba teg na fa tànkam lu Seex Ibra Faal defoon ci lu baax sama bàjjan ba def ko ci lu baax fu mu sampoon dara mbaa mu samp fa kër sama bàjjan euh, samp na fa daara samp na fa kër waaye nag gay mu jéewoo ko mu réer yàlla na yàgg toxo ndax lu sama bàjjan ba bëggoon seexal faa baax ba bëgg ko bëggalu ni toolu mbaa nga bëgg lu ko raw li nga bëgg sa yoonu maam yàlla na la ko yàlla gën bëgg sëñ Tuubaa nga naan sax faa fal na ànd ko yow di la sant bu baax di la gërëm bu baax di la ñaanal bu baax nu bokk ko yàlla may nu dëgër ak taxaw yàlla may nu kattan gu nu mën a àndee yow di liggéeyal maam sax faal sa maam ji ngeen bal dajale seen i addiya fu ngeen jëm wulee seeni i carte seen bopp rek du néegu leen jëkkër néegu leen doom néegu leen dara kon xam ngeen ne yàlla moom am tegu fi góor jigéen rek na góor tekk jigéen jigéen toog ginnaaw ndax ku fi baax jigéen la jur ku fi baax rek jigéen la jur moo jëkk a jëkk ci lislaam moo jëkk a dugg lislaam moo jëkk a dee ci lislaam loolu ngeen tax koo yéen ñi nag moo tax rek juróomi minute ngeen ba yàgg doon ay kaar di def ay million di joxe noo leen barke maam Cheikh Rafal mi nga xam ne yéen bëgg na Cheikh Rafal yàlla leen Cheikh boppam fay ko seen jëmm yi fay ko seen njaboot def ko seen borom kër yi ngeen ci kër ga barke maam Cheikh Rafal lu tax ngeen jóg ni Cheikh am na pay mën na ko am na ko mën na ko am ñemewul bor de Cheikh ñemewul dafa am lu mu faye kuy leb tam moo tam loo faye ngay rek bor waaye kiy leb te denc li muy faye su ko neexee leb yàlla na ubbi magasin yi tibbalu ci ni nga ko bëggee ci barke Maam Seera Fall adde yombunu wërsëg yombunu njaboot gu baax yombunu liggéeyal sëriñ bi yombunu waaye yàlla yàlla may ngërëmu sëriñ bi nag ci baax moom dara jaam ndax li dégg maa ko dama gis gi ak wax gi néew amu ci solo loolu la wax ndax ne boo ci ko gisee gis sa bopp boo ne nangam laa yóbbu gis sa bopp te boo gisee sa bopp adde moo tax dañuy adde bi dañ koy yalmoo seen addi jot naa ci dinaa ko tegal fa bay suma addi ndax man lu ma waay jox dinaa bëgguma ci kër li ma sëñ saa wax léegi wutuma ci kër wutuma ci woto wutuma ci mbuum rafet li mu wax la ko wax na ma jë ba gëj na maa jënd mbuub xam nga lu mu bi jar sama bopp hmm? kon ngi ñaan addi yi ma di ko jox sëriñ bi yàlla na sëriñ boole fay barke maam Cheikh Rafal sëñ moo demee sama mag ju baax ma ne lantinoor laa may teg ma ne ko luy lantinoor sëñ bi mu ne ba ma tëye diw lu ma waay jox ma jox ko sëriñ bi waaye mooy lu ma waajoo ma jox sëriñ bi maa ngi ñaan gudd fan ak wér ci yéen na ànd yàlla na yàgg te yàlla na sax ñun ñi fi toog bu kenn manqué ak ñoom ci kër ya te bu kenn faj sa wërsëg bëgg-bëgg ci biir ne am na ko ndax ñu fi kenn ko nga bëgg bëgg xol am nga tiit ci xol am nga bëgg bëgg njaboot am nga loo ragal yàlla bu ñu gis ragal na am lu ñu bëgg yàlla na def dund te ànd ku wér yàlla na am wërsëg wu yàquwul ci barke maam Cheikh

barab bi barab bu ziyaar la ndax alquranul karim dafa wax ne eh, dafa dafa settee leeral place yi nga xam ne place yi rawante di sutante ndax ñu bari dañuy jàpp ne bu ñu ne ziyaare ji bërëb wala jox cër eh, yàlla dañ ñaan yàlla day daa wax ne nit ñëpp a tolloo nit ñëpp yem ci bind ak bañ leen bindee waaye am nañ ak woro barab bi it barab yëpp barab bi yàlla la waaye barab yi suñu borom la waaye am na ci barab yoo xam ne suñu borom moo ko warmaal euh, Seydina Moussa alayhi salaam bi mu dem di dox benn bës euh, yàlla bëgg koo jox la mu ko jox ba mu agsee ba ci wenn xur suñu borom da ko ne ko faxla na aleyka innaka bil waadil muqaddasi tuwa sumil say daal barab bii nga ne kenn du fi soli daal ndax barab bi daa sell kon alxuraan na ñu ne am na barab yoo xam ne barab yu barkeel la eh, ñu am yaakaar ci barab bi barab yi bokk ci barab yooyu ndax eh, nitug yàlla fi nekkoon eh, kenn ci nitug yàlla ndax daa am benn kilifa gu mag neex imaam Junaydi nga xam ne bu ñuy wax tey tasawuf muy lépp luy soufisme tijaaniya xaadiri lépp aju ci biir biñ ko laajee lii nga am foo ko jëlee bokk na ca lam wax waxoon ay turi yàlla yu doon doon wérd waaye nee daa am yaay ju baax joo xam ne nitug yàlla la woon mu taqoo ak moom kon boo amee baay bu baax buy nitug yàlla la kon kon nan nga fooy toll ak lan ngay am te moom dama am ni yaay ju baax joo xam ne daal dama taqoon ak moom am ay naafila yu may moo tax ma raw góor yàlla yëpp te kenn ku ne xam na ne eh, soxna Asfa radiyallahu anha eh, wajuram wa daa bokkoon ci góor yàlla yi nga xam ne dañ koo tànn pays suñu borom bi subhanahu wa taala kon moo tax ma ne bara bi barab bu ziar la euh, jataay yi nga xam ne wala boo jéego yi nga xam ne ku nekk yëkkati na ko tey ngir ñëw ci bërëb bii bu màggal gi amu danit jaadu na Sëriñ Tuubaa moo wax ne zur man tuhibbu wa inchatat bika daaru boo amee ci nit cofeel fu mu mën a nekk ne donte ay robinet yaa nekk ci yoon wi donte ay xur ay montagne mënoo fa àgg Sëriñ Tuubaa nee na bëttal reyanteel jéggil donte da nga cay gaañu sax ba àgg ca barab booba ngir ziyaare te yaakaar naa ne ñëw fii tey dañoo dox ak suñu déego rek agsi am na ñoo xam ne dañoo dugg oto ñëw kon loolu santaaneb Serigne Touba euh, soxna si loolu moom mooy euh, mooy yëlle ji ak mboole ko fi euh, ñu ñëw ci biir loolu nag ñëw ànd ak kilifa yu baax kilifa yu tedd ñoo xam ne ñu ngi ci fàttaleku ka nga xam ne moom moo war lépp di Baye Xalifa Fall majoor ku ne xam ko xamoon ko ci li ñuy tudde xidma mooy jël li nga am di ko def ci yoon yàlla di ci xaar ngërëm te lu waay am tey ci kaw suuf rek looloo ko ko may maam Cheikh Ibrahima Fall fekk na fi fanweeri nit ak juróom-ñeent waaye li ko may lii mu am tey mooy daa lépp lu mu amoon rek da koy jox Cheikhul Khadim radiyallahu taala anhu tax yàlla Sëriñ Tuubaa jël jox ko loo xam te ni jox ko kenn eh, Baye xalifa ci loolu la nekkoon

ñu bare bare bare def ko Serigne Touba neena ñi taxawé taxaway bobu di njëkkante di mu liggéeyal bu ëllëgé ci digg aljanna la wax tay aljanna bokk na té milier ba ci digg ba neena fofé moy seeni kër innal ladhina chaaraun li khidmati falahum lahumu dayaaru wastal janna kon suñu wajur ay khalifa am nañ ci moom yakkar bu baax ci aljanna jojé nga xamné ci digg ba lay nek ndax seeni kër ndax Serigne Touba ko wax to Serigne Touba lu mu wax waxi yàlla ak yoni bi sallallahu alayhi wasallam Euh, ñu ñëw ànd ak euh, Serigne Cheikh Fall mi nga xam ne mooy seen xalifa ànd ak inspecteur Serigne Modou Mbenda mi nga xam ne euh, moom mooy seen jëwriñ ci kër gi ànd ak kilifa yi nga xam ne muy alaaji Mor mi nga xam ne kenn ku ne xamoon na digganteem mak Baye xalifa ak Serigne alaaji Ndiaye Guèye moom it ñëw ànd ak ñun jotaay bi daan ko def jamono yu nekk waaye digganteem ak Baye Khalifa ku ne xam ko muy démb te door a ñëw ànd ak Serigne Baar Niang ak mboolem ñu ñu àndat ñu ñëw ànd ak euh, Serigne Makhtar di njabootu Baye Khalifa soxna Astu mii nga xam ne sa waajur lañ ko tuddee di sa waajur wu ndaw teraanga yim doon def cee jamonoy waajuram mu ñëwaat fiddliwaat loolu ndax alquran moo wax ne euh, woofu bil aadi inna al aada kana masula la nga dëlante woon daan ko def waajure daan ko def wala nga ko doon def bu ko fecci mukk ko yokk boo ko yokkee fan yi day yokku barke bi day yokk xéwal yi day yokk boo xoolee suñu kilifa yi rawante bi li tax kenn ku nekk yàlla jox la lim la jox te nangu ko mooy kenn ku nekk kóllëre ga nga amoon danga koo fas waaye fecci woo ko kóllëre ku ko fecci wóor suñu borom nee na saa su dama lay fasal da ngay raw ñëpp euh, soxna Astou Fall mii nag euh, ànd ak kilifaam yi tey ñëw indiwaat tànga ji nga xam ne da ko doon indi muy hadiya to kenn ku ne xam na li nekk ci hadiya Serigne Touba waxoon na ko euh, duñ ci guddal Sëñ Tuubaa waxoon na ne ku bëgg raw say maas deel joxe addiya loo joxoon daaw bu renee da nga am lu ko ëpp leen ziar bu baax a baax di leen ziaree nag fii ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall ci njaarim di kër Cheikh nga xam ne bi maam Cheikh Ibrahima Fall ñëwee fii ci njaarim ci ndigal ku tedd ki Serigne Touba Cheikhul Khadim bi mu wàccee Mirina wala bokk fii ci Riyeeli Manel listixaar loo sëñ Saliou Fall ak Cheikh Atman Diop kër gi Cheikh Saliou sëñ Saliou moo ko listixaar Cheikh Atman fële ca Mirina Cheikh Ibrahima Fall wàcc fii 1915 am ñu ne 16 ay ko Thiès bi mu ñëwee sànc nag këram gu njëkk muy Medina muy Madinatu Mawal la ko tudde muy fii sëñ Amdi Asan dëkk fa kër sëñ Mor Talla Fall ko mu doon kër maam Cheikh Ibrahima Fall yàlla dogal nag feer ba ñuy wax peste am fa te yóbbu fa lu bëri ci talibé ñu wax ko ku tedd dik mën a moo ko les saxaaram bokk fii mooy kër gu mujj gi maam Cheikh Ibrahima Fall 1918 la ñëw dëkk fii bi mu fi génnaatee mooy 1930 bi mu wàccee liggéey fekk sangam bu tedd ba jëriñ Serigne Alioune Thioune jiite liggéey bu mag bu rëy groupe Lamp Fall nga xamante ni bii mboolem ña fay liggéey ak mboolem taalibe yi nga xam ne seen pas-pas ak seen yéene mooy xamle Serigne Touba ni ñu def ba jëriñ ci moom nag moo tax may wax ndax sëñ Tuubaa mënu koo xam le waaye mënees naa xam nu ñuy def ba man koo topp te loolu mooy bunt bi mu bu tëdd boobu taxawal Lamp Fall tudde ko mu Cheikh ba mu diina waaye di ca liggéeyal yàlla di ca liggéeyal Serigne Touba am yéene ak pas-pasu taalib yëpp jëriñ ci Serigne Touba Cheikh bi nga xam ne mooy bërëb bu maam Cheikh Ibrahima Fall dund gi muy dund Cheikh Fall ak bëgg gi bëgg a Ibrahima tax na mën a du romb dayee Cheikh Fall lépp lu mu gis maanaam Cheikh Ibrahima Fall doon dara dana fa teg tànkam moo tax waral fii ci njaare mu ñëw fi tey sant nañ yàlla baax ci fekk gi ñu ko fekkee tey ñaan yàlla mu doon ay ati ati ñu di ko teew saa su nekk di ñaan yàlla borom defal la ci ndam ak xéewal di wax na rek bërëb bi góor yàlla yu bëri leen seerafal takk leen tànk waaye nag kenn ci jëwrin yi muy Moustapha Fall mi nga xam ne moo ne ci kër gi taalibu sëñ Cheikh Fall ndigal ànd ak sëñ Malick ak jëwrin yi moom la ñuy bàyyi rek gannaaw sëñ Aline Badara mi nga xam ne mooy suñu jëwrin ñu moom liggéey bi liggéey bu tedd bi di ñëw fii am mooy ñetteel wala ñeenteel yoon yu ñu fi def ay jotaay yu mel nii ndax duñ denc di ñëw ci bërëb bi saa su nekk ndax xam ne lépp lu ñuy wax ci àddina nit ñi di ko dégg fii la xewoon góor fii la leen Cheikh Fall def góor gi Mor Ndiaye tomb ñoom Baye Cheikh Massal ñoom Baye Cheikh Ndaw ñoom Baye Modou Baye Issa ñoo ñee ñëpp fii lañ leen tànn ndombal tànk moo tax ñu fas yéene li fi xewoon du ñàkk sëñ Moussa Fall dina am lu ñu ci nekk sëñ Yàlla sëñ Mamour kon santaat suñu borom bu baax a baax si barab bu ter bi waxaatul mu waar ko waxee fi la lépp xewee lool kon suñu jëwriñ eh, di eh, kilifa gu mag macha ni nga ko waxee am cër cheikh si Serigne Touba wër xam naa ni eh, saa su ne day daw rek da ko da koy nangu waaye loolu su borom dogal di di am mbég loolu ci teewaayam si barab bi moo taxit eh, jox eh, sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Moussa Fall bu ko defee rek ñu mën a tabbi mm-hmm. mu ànd ak ñun wan ñu fépp foo xëy njëriñ la ñu mën see barkeel baax si barkeel maam Cheikh Ibrahima nañ Cheikh Ibrahima Fall nagul ñu waaye am nañ yéene daal ànd ànd ko ziar bu bu mucc ayib boo xam ni Mm, àdduna bi yëpp dinañ ci dinañ ci bég te xam ni niñ koy waxee saa su nekk rek leer gi moom fii lay bawoo saa su ne ndax fii mooy ni nga ko waxee mooy màkkatal mu karam màkkatal mu karam la ko tuddee sëriñ Touba jox ko ñetti suuf ko ne dégg na xisa yooyu ba tey benn bi mu def ko benn bi mu def ko barsax bi ci des mu def ko la ñuy jullee daxar gi nag euh, ma daxar gi nga xamante ni euh, ku tedd ki daan na toog njort na nañ maam Cheikh Rahim Fall daan na toog ndax euh, demon na ba ba ba sut bâtiment bi waye ci la serigne bi joxe ndigal nak ñu mën ko wàcce ginaaw bi nak ci lañ ko def ni dakar gi nak bok na ci ci ci ci ki yu mucc moy ko xam mas mas nga amé tawat jangoro wala aajo bo ñëwee dañ lay yabal ci dakar gi rek nga balé ko ak dir rek daal di suñu may lu wër delloo la sago nga mëna a wat ci yitté euh, ndal yi nak moom ndal maam Cheikh Ibrahima momit nga dan buy rot ndali euh, ñew ñew ñew di bale daxaar gi do ko def ak dir rek euh, daal di daal di mën ci sa wër garam lepp ci ci solos solos barab bi la ak ak barab mom moom am dayo bu ngeen fi duggé di ngeen xam ni gum fonku mamam motax mu def mu def ni kër gi ndax euh, lepp fonku ndonay ndonay mam Cheikh Ibrahima Fall ba taxna tiwli ngi gis may tiwli nga xamanteni Euh, moo nekkoon ci ci bâtiment maam Cheikh Fall ba ngeen di gis nga xam ne sëriñ bi moo moo ko wàcce defar ko ne tabax ko euh, waaye tiwi moo ko daan tiim moo daan tiim maam Cheikh Ibrahima euh, sëriñ bi nag ci fonk koo fonk na ko ndax xam ngeen ni mënoon naa jël tiwili yóbbu ko fu ne waaye ci ci maandu goo xam ne sëriñ bi maandu na ko moo tax mu jël tiwili ba ko fi tiwili kat danaa mi mi mille neuf cent su ma juma quatre vingt dix la la yeesalaat bâtiment bi waaye tey Tivoli fi mu nekk fi la nekk euh, nit dina fi ñëw sax daan ne mën naa joxe ay millions lim bu takku ci xaalis ngeen ñu jox ko Tivoli mu yóbbu ko këram waaye dañ koy wax kàddu ko bu jubee ba dugg ci bopp sëriñ bi doo koy noppee wax ba tey ñi ngi waat ci barab bu tedd bu sell bi di maakatal mu karam euh, fi nga xamante ni fi la maam Cheikh Fall jëmmi boppam ji ci lañ ko mujjee gis mu fekki jëmmi boromam di ki nga xam ne mooy Serigne Touba Cheikhul Khadim waañ wi nag ñu taxaw mooy waañ wi nga xamante ni bi mu jotee ndigal ci ku tedd ki ndog yooyu nga xamante ni euh, lañ ko daan la joxe ndigal ñu koy togg waaye bokkul nag ak fi ñu daan toggee ndog yi waaye fii nag mooy waañu boppam waañu woo xam ne waañu Cheikh Ibra la wuñ daan togg wuñ ko daan toggale li mu jëfandikoo ñuy wax Baye Cheikh Tall galo ñu ngi koy wax ñoom ñoo féete woon yaakaar naa ci waañ wi daan ko ko toggal li muy jëfandikoo ndax moom soxna yi daawuñ ko toggal li muy jëfandikoo ba tax na euh, seng yi mooy seng yi nga xam ne jamono jamono jamono yàggee la ba tey ginnaaw bi nag lañ koy yeesalaat ba tey du jóg ci fonk gi nga xamante ni Serigne Cheikh Ndigal fonk na ko euh, mam Cheikh Ibrahima Fall ba moo tax waañ wi rek dañ ko yeesalaat ngir ngir mu méngoo ji ba nga xam ne ku fi ku fi dugg rek mën koo ziar na xam ni fii lañ doon toogal maanaam Cheikh li mu doon li mu doon jëfandikoo bu nu jàllee ci ginnaaw nag mooy ba fi nga xamante ni nag euh, ci la ci la baga bagage yi nekk bagage yi boppam mi sëriñ bi nag sëriñ Cheikh Ndigal def ko mise nga xam ne nee na dafa bëgg fii fii ak ñuy dund rek dund gi di am ku ñëw rek mën a teg sa bët yi ci ci ci ji jee jeexitali maam Cheikh Ibrahima Fall waaye lu ci yéeme ci ci Cheikh Ibra Cheikh Ibra euh, kenn du moom ndax biñ ko defee mise rek xam nga bagage yi sëñ Tuubaa Cheikhul Xadim yi gaal yi dañ ko gaale woon ci ci ay ci ay taabal waaye biñ defee fii mise rek biñ demee fële dañ ko defaat euh, mu nekkaat moom it mise nekk ñu def ko nikkel keroog biñ ko biñ ko defaree pare li ci gën a yéeme mooy ñi dugal bagage Cheikh fal Fall ci ñoom ñoo dugal bagage sëñ Tuubaa fële ca ca kër gu mag muy même waaw euh, ñun bokkoon nañ ci macha allah ak ñeneen nga xam ne ñu dugal fii ñoo dugal fële fële nekk nickel fii nekk armignon nga xam ne ba tey da xam ne féete kaw gi sëñ Tuubaa di féete kaw saa su ne Cheikh Ibrahima Fall.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 Euh, di leen xamal ni fii mooy baragu ndànd foofu lañ génn sànq di barag bi nga xam ne wax nañ ni euh, Serigne Touba moo ko joxoon Cheikh Ibra barkeelu keroog bi nga xamante ni dañ koy indi maam Cheikh fal dafa wax mag ñi nangeen ko yóbbu te bu laal suuf mag ñi dañoo yor ay jën bu ñuy sonnee dañ koy samp tëdd ñi ñi samp ko taxaw buñ ko waree yëkkati yëkkatiwaat ko ba ni mu ñëwaatee fii baraag bi njëkke fële jóge cees dem Marina Madinatul Munawara ka sëñ taala ga ba ne mujjee fii nag fii nag la Cheikh ba mujj jëmmi boppam ji dañ ko mujjee gis mu fekki jëmmi ku tedd ki Sëriñ Tuubaa Cheikhul Khadim fii la génne sëñ ñu jël néeg bi sëñ Modou Moussa Fall jël néeg bi gas ko ñu dugal ko ci biir mooy foofu ngeen génne ci biir di santaat bu baax nag Sëriñ Tuubaa di ñaanalaat nag lépp jàppandi lépp yéwén xam naa nag dañuy daal di dem rek ci daara ji nga xam ne fa la ñuy tëjee liggéey te daara alxuraan joo xam ne sëriñ fonk fonk alxuraan ak euh, Baye Fall léppam di alxuraan moo tax sëriñ bi ci bii kër Cheikh Ibra gi mu fi deflu lu daara joo xam ne daara alxuraan la joo xam ne euh, ñi nekk bitim réew ñoo ciy jàpp ñoom sëñ Aliou Ndiaye ñoo nekk bitim réew ñoo ciy jàpp ba ba ba ba mën a yëwén dañ fa àgg nag xool liggéey bi fu mu toll te ñaanal leen ñoomit ñu mu àgg ci jàmm bañ jébal ko sëriñ bi di sant baax sëñ Aliou Thioune nga xam ne ci ziar bi moom it ak yéen jëm duggee ci kër gi waaye dañuy wax ni ñun fii képp ku fexe ba nga tànk tegu fi rek kooku mënoo ko fay ndax sëriñ Cheikh Ndigal day wax ni nit ñi de maa leen mere ndax bari na lu ñuy sàkku ci àdduna ñu bàyyi ko fii dem di ko wuti feneen te mi fii ñu bàyyi ko fi kon mooy li waxaat ba tey ni nit ñi dañoo jege eh, déeg déeg maraxoo leen na rey ndax lu ñuy sàkku rek ba tey mi ngi fii rawatina ñetti teen yi nga xamante ni Cheikh Ibrahima Fall fa ko bàyyi mu mën a saafara àdduna ak alaaxira loolu lépp sëriñ bi ngir mooy wax ngir bëgg nit ñi di ko dégg daa yéen a ñëpp jariñu rek ci ma Cheikh Fall moo tax ba koy génn ñetti teen yi mooy mooy mooy ba lañu jëm ca daara ja nga xam ni euh, fa néegu maam say na bu njaay nekkoon gas fa teen bi fi teen bi nekk mu nekkoon néegu maam say na bu njaay bi ci ëtt bi mooy bi ngeen romb noonu mooy teenu Cheikh Abdoulaye Yakhine Diop sëriñ bi mi ngi wax ni eh, saafara yi nga xamante ni ku tedd ki moo ko daan jox eh, sëriñ Touba moo ko daan jox maam Cheikh Rafal du ko daan def ci benn benn benn ndaa bu tegee foofu ku ñëw rek boo jàngoro joo am rek boo ñëwee da ngay tànk rek naan daal di wér waaye nee na benn ku xaw a nitoo di ko eh, daanu mbëkk ko mu toj ci la Cheikh Abdoulaye Yakhine gafeteen bi ba ca pencumaat Euh, fii la ko maam Cheikh Rafat bàyyi moom moom la ñuy wax ñett teen yi waaye teen boo ci jàpp rek lu mu mënta faj ci àdduna amut kon fi mooy fi mooy màkk loola fii lañ mujjee gisee jëmee Cheikh Ibrahima ci xam naa ñoom sëñ Maamun mm, sëñ Alioune Badara xam ngeen may gën a xam lépp macha allah waaye baax gu ngeen baax rek ak ak woyef gi moo tax ngeen dékk ma micro bi waaye xam nga man duma ci lenn euh, xam ci lu may wax waaw damay làmbatu rek euh, doon taalib gën a ci taalibe sëriñ bi. jërëjëf euh, sëriñ Moustapha Fall si wax ju am solo ji jërëjëf sëriñ Mamoun Ndaw xam naa ni buñ ko sañee euh, sunu jëwriñ sëriñ Alioune Thioune euh, sàkku si moom ñaari kàddu si gannaaw li nga xam ne rek moom la ñu gis si kër gii di kër maam Cheikh Ibrahima ni nga ko waxee di fii nga xam ne dafa luñ mujjee tegante gët maam Cheikh Ibrahima Fall lenn si ay njeexital ñaari kàddu rek si lii nga xamante ne moom la gis si biir kër gi sëñ Mamoun. Eh, jërëjëf sëñ Aline Badara Ndim jërëjëf sëñ Moustapha Fall ci leeral yu am solo yi ci kër gi nga xam ne kër maam Cheikh Ibrahima Fall eh, fi ñu toog nii rek ak fi ñu dendal nga xam ne suñu diggante mur danga dara boo tegee sa boo jàkk ba boo taal sa loxo sax teg ko fi maam Cheikh Ibrahima Fall wuy jë boromam jëwrin fii altine ci guddi sedd talaata la fi Cheikh Ibrahima Fall bàyyi ko tombe ñetti fan itam xarit fii la dajale woon mag ñi ku mel ne Baye Cheikh Niang ku mel ne Baye Cheikh Diaw ku mel ne Baye Cheikh Moudou naan diw am na ngërëm la yàlla gërëm naa ko diw am na ngërëm la yàlla gërëm naa ko na ngërëm la yàlla gërëm naa ko waaye diw ak diw ak diw am na ngërëm la yàlla waaye wàcc ko mu ne Moustapha dana leen wàcc boobu mi ngi tàggatoo fii la maam Cheikh Fall mu waxee kàddu gu siiw googu ne yomal xim kenn du fay wax di bay yëf mm-hmm. fii la xëyee lépp lu noonu kër gi ma dañ koy suñu wóor Moustapha bu fi dara des ci la maam Cheikh Ibrahima Fall bàyyee juróom-ñaar juróom juróom ñaar fukki dërëm juróom-ñaar fukki dërëm lañ mujjee gis ci loxoom bu tedd ba fii fii ci néeg bi waaw juróom-ñeent fukki dërëm 450 fii maam Cheikh Ibrahima Fall la fi baax 450 francs waaw fii lañ ko jëlee guddi jaaral rek moom fekk boo santaane na taalibe yi dem ca ngas ma ñuy gas raay tolloog dala bi ñu tolloog dala la leen maam Cheikh Fall romb ca fajar ga waaye Fall maa jor nee na kërug sump gañ fanaan keru suba la ñu tëdd ca keru ngoon nga ca guddi ga fa leen Fall bu jëm Touba fii la woon fii la ñu jët teg bët maam Cheikh Ibrahima Fall ba Mouridina fii la ko Cheikh Mouhamadou Bachirou Mbacke fekk fii jël yóbbu Touba kon fii la lépp xewee tey fii la maam Cheikh Fall mucc fii bi sëñ Touba wootee dëkk Njaareem 1912 1915 mu woolu maam Cheikh Ibrahima Fall ba mu dalee Mirina fii la mujj mag ñu bëri fii la leen defaree. kon naa su Fall mu soxna Njaareem ñii tey ñuy nga xam ne ñu ngi koy fàttaliku. fii la gane jamono ci biir pit gi ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall fii moo doon wanagu mbooleem buur yi Cheikh Ibrahima yoroon ku mel ne Soxna Fall Mbenda ku mel ne Saasi Mbóoj ku mel ne Kumba Cala man ñoom ku mel ne eh, eh, ku mel ne soxna soxna soxna Siri ku mel ne Lalla ku mel ne soxna Fall Mbar ñëpp fii lañ dëkkoon nii seen kees yaa ngi nii ak mbooleem nag li nga xamante ne bii maam Cheikh de leen yoroon te ñuy doomi soxna yi ku mel ne soxna Njaay Njare ku mel ne soxna Faat Fall Ousmane ku mel ne soxna Faat Tambidu fii ma Cheikh ñëpp mboolem ku mu jaboot rek fii nga mujj ak moom fii la Cheikh Moussa Fall njëkk a toog xalifa ma Cheikh Ibrahima Fall 1930 ba 1950 njaarim gi kon fii lu ne xew na fi ni mu Cheikh Ibrahima fii la leen defaree moo tax jëwee ñàkkul nag bi nga tàbbi ci bët bi am na loo yëg mu bëggoon nu am ci ay kàddu yu ñu dolli koon moom ne maam Cheikh lu mu fi bàyyi dañ ko war a noo ngi ñaanal baax sëñ si ndigal Fall mu yàgg fi te wér bërëb bii tey mu melee nii bañ di fi ñëw sant na ko ndax tey la fi Cheikh bay woon moo moo ci moo ci teg loxoom téye ko ba tey ñu mën ko fee fekk décret bu vitre nii ma def dana am téeméeri at nit ñi ñëw di ko fekk si nga xam ne ñi ci sunu kan ñi ci kanam tuut du fekk dara dañu mën a teg seen bët na lii Cheikh Ibra laaloon na ko wala lii Cheikh Ibra gisoon na ko ndax ko ne woon tey nit ñi danañ dem ba ñëw fekk baraag ma maam Cheikh Ibra Fall photo woon ñëw tey taxaw fi foto wala ñu taxaw fii dend ak baraag bi rek loolu ku ne nawoon danañ dem ba mu am tey wala danañ dem ba gis gaal goo xam ne Cheikh Rafal daan na ci def mbubbam wala bokk loo xam ne Cheikh Ibra daan na ci naan wala bank boo xam ne daan na ci toog kon loolu lépp jàmbaru Serigne Cheikh Ndigal Fall la ñu ngi ñaan yàlla mu yàgg fa loolu tamit jëwrin ba nit ñi yëg nga am fii ci bërëb bi asubillahi min seytaan rajim Xadim

Mais bi je ñibbisee suis gis ni télévision yi kenn de télévision. Tuubaa kenn tudd Maam Cheikh ñun nag xam nga Je Bawol moom de moom sëñ je rek la am te dañuy wax naan xam ci ne boo ko koy wuti comme ni ko ni ma ko ni ma ko doon leeral nit ñi rek mu jël sama

bi ma ne cëppit dama ne xale yi damay yóbbu rajo yi Touba ci lamp laa ko tudde ñu ne ma du ci dal fekk nga ko ñu ne ma du ci dal ndax naan ko murid man leen ndokk ñett ñett moo tax ma def sëñ mag bi maam Cheikh Ibrahima Fall kenn xamul ku ku ku fi nekk maam Cheikh sax kenn xamul ko kenn lijjanti ko woon

samedi dinaa ñëw ziare si kër gi yëg yég yégi la bu am rek waaye comme ni nga ko waxee léegi nii lii buñ ko wanee ci télévision bi ni ñi xam ko ah li ñu bëgg la ñu am ko ndax bi rajo bi tàmbee dama la wax naan sëñ Saliou Mbacke yàlla na fi yàgg ci biir sëñ Modou Aminta Fall yàlla na fi ci laa ci la wax ñëpp naa ko sëñ Modou Aminta Fall léegi moo tax tëjee bu même télé yi nga xam ne sax duñu duñu luñ ñu tëjale yoon wi di di tudd ma lañ fa teg sikar sikar kon li ñu bëgg ñu koy am <laughs> waaw kon li ñu bëgg kon li ko bëggoon ñu koy bëgg li ñu bëggoon ñu koy bëgg am kon nag kër gi tam daa bëgg mu àddina bi si yëpp xam ko ngir jëriñ ma am làmp niitaat rek waaw ñëpp ñëw jëriñ si ñu ñu ñu yegg ci sëñ bi ndax si moom kenn ci yegg moom fulla ñëpp kenn yegg ci moom jaaru ci maam Cheikh waaw moom mooy li kon nag bu nu bu nu bu nu fexee ñëpp tudd maam Cheikh Ibrahima léegi ñëpp ngi sikkar alhamdulilah rabbil alamin bu njëkk kenn xamuñu kenn ku xalifa maam Cheikh léegi léegi Cheikh jëm tabarkal loolu moo nekkoon suñ suñ combat ñun te léegi def naa ni sant sant bu baax rek na gën a na gën a wér rek kon nag kër gi itam fii kër kër maam Cheikh gi itam daa bëgg àddina si yëpp yëpp yëpp xam ko

waa itam ñi ma fi àndal itam du bu ma génne fi euh, ni meen jabaat du bokk ni meen jabaat alalladi uli daxe awaladi wayra walidin bi xayril baladi bi ali i wa sahbi i wal ummadi salaatu sil arsil asimi samadi ca moom at la lamp yu dem nanu mayon ba ba dem ko naakiri ngir yóbbaale Cheikh Bamba ay idaay yu bëree bëri barke borom Touba barke maam Cheikh Ibrahima Fall. daan yebal daanan ëpp nii sax ci mbooloo waaye nag yi xew yëpp barki démb bu premier mai beeg yooyu ñi ci xaw a mage ba tax ñu am gànt sëñ bi ne ma naa fi ñëw ànd ak sëñ Alifa ak Cheikh Jëmb Fall ma leen mu sëñ Abdourahim mu sëñ Abdourahman ak Xaali Siise muy délégué de quartier bi ñu teewal ko teewal euh, soxna si ay cant moom wax dëgg waxtu koy def bu ne ci ba mu tàmbaleeg léegi day xëy yónnee sëñ bi li war doon wàllam nee na nee na comme mënta ñëw da koy yónnee teraangam waaw nee na ko fii xar yónnee koy nag yónnee koy gëléem saa su ne di wax ne ko comme mënta ñëw wàllam a ngi foofu waaw sëñ bi tamit eh, eh, fonk ko lool ndax gis na taxawaayam du lool it lu muy liggéey lu ne di ko liggéeyal Cheikh Ibra soxna si dana ko jàppale dana ci ànd moom ci jëfam kon nag eh, bu amee bis bi tey te ñu bokk way jur bi soxna Astu bokk ak Moussa Fall sëñ Cheikh Ibrahima Fall looloo tax sëñ bi ñu fi ñu ñëw di teewal ñu ko wax rek dafa ko dañoo waroon ñëw ci suba ànd ak yow ndax li ngay def lépp ñun nga koy defal di ñaan mu yàgg koo def te ñu yàgg koo fekke di ci sant itam yéen euh, waa Lamp TV seen taxawaay itam tey kilifa Aliou ñu ngi koy sant di ko ñaanal ak wér ah, ak yokk waaw moo doon kàddu yéen ci wax jërëjëf moo du ma amoon about la ilaha ñu ñaan yàlla ci barkeb maam Cheikh Ibrahima Fall babul muridina barkeb soxna Aïssatou Fall mu yàgg taxawi bis bi moom soxna awaay ànd ko ak bokk yi mu ko àndal ak taalibe ak njaboot gi gépp di njabootam Cheikh Ibrahima te lépp yal na ko yàlla nangu yal na yàlla nangu jëf ji ci barke borom Tuubaa Xaadimu Rasuulillaahi sallallaahu alayhi yaakaari jaam ñi mu mel ne soxna Awa dañ la jaajëfal ci jëf ju rëy yi nga xam ne waxtu wu nekk yaa ngi fas yéene di ko taxaw di fàttali ko jëfi koo dul fàtte mukk waaye sun borom ne fa sakki fay riskiré tan fa wul moomi nii yàlla moo wax ci alxuraan ne dee fàttali ndax fàttali ku dee jëriñ ab jullit waaye xam nga ne sa way jur tedd wa di soxna Asou kenn du ko fàtte mukk ba bés ko nekki waaye way mu tedd wayit di am di maam Cheikh Ibrahima Fall baabul muridiina di su ko fàtte mukk ba bañ koy fekki waaye nag ni ma ko waxee rek alxuraan moo ne fa sàkkir fa niskiri tan fa ulmoon ñi ne fàttaliku gi ñuy def day njëriñal tey ak loolu ëllëg kon faaw ñu jaajëfal leen ci jaajëfal ci mboolem njaboot Cheikh Ibra Fall gën la ci jàppale ñëpp jaajëfal ci mboolem taalibe bi yëpp muy góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi di ñaan yàlla ci barke pàkk bu tedd bii ak borom pàkk bi ku fi teew ren ku ne yàlla nañ fi teew déwén yàlla bu kenn wopp yàlla bu kenn tële yàlla bu kenn faatu yàlla yàlla dooli wér yaram yi dooli wërsëg àggale yéene yi ba ñu mën a liggéeyal Serigne Touba ci barke maam Cheikh Ibrahima Baabul Muriid sëñ Moodu ay di jërëjëf ci baat bi nga doon yëkkati di sikru lahi sëñ Tuubaa ma ngay wax te da ngay baatub laa ilaaha illallaah ca masalik banaan fa kullu man shaari nii fa jawaab xable wala yadlu ahlul kitaab aw làmmiñ di génne lu ne laa ilaaha illallaah moo ko ëpp doole ndax mooy dugal nit ci lislaam ku ko nangoo wax duggoo ci lislaam ku ko nanguwut a wax doonagoo ab jullit baat boobu nag am na ay jamono yoo xam ne sëriñ Moussa Ka mii way waykatu sëriñ Tuubaa xaadimu rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam ñu bari xam ko ci tagg ak taarix am na jamono mu jóge Touba ñëw Njaaréem nekk ci sundaar sëriñ Mor Mbay Siise am na fi ñetti at ak ñetti weer ak ñetti fan doon ñibbi Touba keroog ba mu ñëwee di génn ay téereem di ko war sëriñ Mor Cissé téere ya la ca bari lépp mbindum sëriñ bu baax sëñ Mor da xool mbind ba ba mu yàgg mbind mi de am naa lu ma wax sëñ Moussa Ka ne ko lu mu la wax mu ne ko mbind mi nee na ma sa tawar ji ci wér am juróom-ñaari at yoo xaye dara du la dara sëñ Moussa Ka ne ko ah, man day damaa gis malakul mawti Tuubaa motax ma daw ñew njéeréem gi nga xamne ne yu magat la ngir la ko fi señ ma mbinn bi dal daal na ma xamal na ma sa tawat ji da nga ci wé def ma yonent bi tan aw xéetam ci jalab ru yoyé ba mu tànnee ab jalam ba nopi dafa dal di wo Serigne Touba khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ne ko yewen nga tan sañuñ sëñ Touba nee ba dañu defe woon ne la dess ci jalba ci lay dem way dama ñew ci li yonent bi tan ma tanna ci sama ñoon way sëñ Tuubaa bam tanne ba noppi daawoo mam Cheikh Ibrahima Fall babul muridin ne ko yewit mi ñew tan sa ñoon Cheikh ibrahima nak boba dafa am lu muy wattu muy geej geej gam doon wattu nak nga hay amna am fa jooni at ñu tan su mam adama moom itam mu jógee ci géej gi waaye su dawee di wuy ji geesu war géej gi bëggu fee jógee te mën ci ñàkk wuy ji su dawee bay bëgg a àgg waññi ko waat dawaat bay bëgg àgg waññi ko waat ne ba mbam waññi ko waatee yoonu ñetteelam dafa ne groupe ñaari bëti wóom ñe ca suuf dal di jël gémmiñam dëpp ko ci géej ga di muucu géej ga di ko naan di ko naan di ko naan ba géej gi jeex mu door a daw wuy ji ba mu demee mu tànn ñoñam géej googee mu muusu woon nag ba naan ko moo doon géejug laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam loolu moo waral boo ne laa ilaha illallah loo ca teg lu dul faan rek du mën a jub ak lu mu neex neex ak lu mu baax baax laa ilaha illallah faan rek moo cay tege mu baax ndax géejug laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi cheikh ibra faal moo ko loolu nag tax na sama sang ma di sëñ Mor may Cissé waxoon ma ne ma xam nga sëñ tubaa ak Cheikh Ibrahima nu ñu ma ne ko ah bëggoon naa koo xam lool de mu ne ma mi ngi mel ne doomam guro ñu xar ko muy yaari ŋàdd wi ŋàdd ko sant Mbàkke yëy ko wii ko sant Faal yëy ko waaye benn doomu guro bi rek loolu Serigne Mor moo ma wax ne ma Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima noonu lañ mel kon Cheikh Ibrahima Fall mi moom bis bii. di bis bu rëy di bis bu tedd te soxna su tedd si daan ko taxawal di ko liggéey biñ ko gisatul soxna Awa Gaye teg ci léppam def ci yiteem yépp def ci alalam def ci taaxam jamonoom ak képp ku mu àndal ak njabootu Cheikh Ibra gi ak njabootam ku jigéen jii di taalibe jigéen yii di soppeem ci saayir ak ci baatin faaw ñu sant leen bu baax loolu lu am solo la kon Cheikh Ibra Fall moo tax Serigne moor waxoon ma ne ma xam nga Baye Fall ma ne ko bëgg naa koo xam mu ne ma Baye Fall mooy ku yàlla jéggal ba noppi ku yàlla jéggalagut doo mën a doon Baye Fall yàlla da lay jéggal nga door a doon Baye Fall ma ne ko Baye Mbakke nag mu ne ma Baye Mbakke mooy ku yàlla nar a jéggal ki yàlla nar a jéggal mooy Baye Mbakke waaye kii wuyoo Fall nag mooy ku yàlla jéggal ba noppi. Lalu senyum Mor bay sey sama sang ba moo ko wax te man ay waxam dama ko gëm ba ag ci lool nah mom da gëmon Cheikh ibrahim Fall lool nah ko xamne ne se ñew ci mom sey bëd di metti nga wànneen wala nga ne ko man sama bëd yi day metti wala nangam da wax Cheikh ibrahim Fall Cheikh ibrahim Fall Cheikh ibrahim Fall bu muy juroom ñaar yoon mu tafliku ci sey bëd sey bëd mu ne nak képp ko xamne sey bëd metti del wax juróom-ñaari Cheikh Ibra Fall di ko def ci say bët ku koy tafli ci say bët say bët dana wér tey doo silmaxa ndax bëti Cheikh Ibra moom rek moo gis sëñ Bamba ku dul Cheikh Ibra rek gisoo sëñ Bamba loolu itam sama sang ba di sëñ Mor Bay Cissé moo ma ko wax kon kooku mooy jàmbaar ji nga xam di maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina moo tax damay faral di wax naan Serigne Touba benn taalibe la am muy Cheikh Ibra Fall waaye ñi ci des ñëpp taalibe Cheikh Ibra Fall lañ ndax rek la ñuy roy te ki ngay roy ku ne mooy sa sëriñ te ku royul Cheikh Ibra doo mën a dem moom mooy royukaay bi mooy royukaay bu rëy bu rafet bi nga xam ne moom rek moo mat a ci saahir waaye moo mat a roy ci baatin niñ ko doon waxe léegi moo tax sëñ Mat Lamin Jóob Dagana sëñ Mat Lamin Jóob Dagana mi nga xay ñëpp xam nañ ko dafa wax ne jataay bu sëriñ Tuubaa ma sa toog fii ci njaarim te Cheikh Ibra nek ci jotaay ba ba jotaay ba jeex faw Serigne Touba dana woné ne Ibra Faal du sen morom serigne ma mi net dana len ci nettali ñaari jotaay mba ñatt dal dina ben jotaay bi man la sëñ Touba di jangalo khassida serigne Touba so lay jangalo xasaa it da nga yor téere bi di xol na jangam tari bi nangum xol ak jangam tari bokkuñu jangam tari ak jangam xool bukkuñ li nga mokkal di ko tari mën ngaa xool feneen te du yàq li ngay tari dara waaye li nga ngàbb nag ci yére bi di ko jàng say bët dañuy liggéey loxo yi di liggéey xel mi di liggéey lépp nekk ci su ko defee mu di jaamu yàlla cër yëpp ànd na doo di jaamu yàlla moo tax njàngam xool ëpp doole addina waaye boroom xam-xam lu muy jàng lu ne mu ngi cay yëraale grammaire ba naxwu bi ak awul bi mantiq bayaan borom xam-xam lu mu yër mi ci yëraale grammaire bi sëñ man la ne may jàng <clears throat> ba àgg ci bayit woo xam ne tër bi jaaxal na ma ci bi ak arool bi bayit bi daal jaaxal na ma waaye ne ñu ma ko laaj Sëriñ Tuubaa mayam ci bayit bi rek di ko baamtu di ko jàng rek di baamu bañ a tee jàng jàll ne ba yàgg Sëriñ Tuubaa dama gees ni ma bët ma ne ko mbakkee mu ne xalaa foofu dafa am lu ma ta defar mais su ma koy laata doon rek Cheikh Ibra naaw falaan ni ko moom mii Mbàkke moo ma ta defar moom mii Mbàkke moo ma ta defar moom mii Mbàkke moo ma ta defar si lëmin lëmin dal di ne nag defaru naa it keroog laay door a defaru ndax doon na Cheikh Ibra Fall bu waxee ko doon sëñ Bamba kii moo ma a defar su fekkee defaru naa it booba laay door a defaru ka mu koy jóob ba nga defaroo yàgg na mu ne benn jot ay bi daa am ku doon laaj Serigne Touba mbubbam barke ndax Serigne bi li mu yëre yim daan sol yëre yu weex a ci ëpp te su ma saa di bind xasidaam yii ak téeréem yii su pee su pee xalima gi ci daaji bu xalima gi doxut da koy fopp ci mbub mi sol da ko ciy fopp ba mujj na mbub moomu daaju Serigne Touba di bind rek fopp na ko ci mbub moomu anam ci mag ñi nag maa ngi muy mbub moomu Serigne Touba mbubbam barkeelu benn bee Serigne bi toog di waxtaan taalibe yi rek ne magam ne di gën di topp si rek di ranu si moom muuti di ranu si rek ba sëñ Tuubaa xam ne kii borom yitte la daal di koy geesu laaj ko yitte ji mu ko mu koy mbakke barkeelu bi rek laa doon laaj ne sëriñ Tuubaa ne ko barkeelu ku ko laaj da nga fay wuutal dara mag moomee ne ñoo kenn ñëw ci jaxum njëriñ bii mag ñi ab jalañ laa dox ndax marché dañ na tubaab la ñëw ci jaxam njaareem xasab fi xasab yi toll ne yi sëriñ bi ñol sol jox ko kii ñawal sëriñ bi mu ñaw ko nee mu gaaw dellu si fekk jataay bi dara sukkandiku wu ci sëñ baa ngi toog rek nee mu ñëw daal di sukk daal di tàllal ndimo bi ne li ma fi wutal day ngi mbakke ne sëñ baa tàllal ñaari loxoom mu daal di ciy teg ndimo li nii sëñ tubaa tam ndimo li nii aw geesu na mët lamin ma ne ko mbakke mu ne ana ndimo li bu ñu ko doon xayma ah Mbakke nee na ah, fi may seet nag yéen ni nun Cheikh Ibrahima Fall fa mu boofoon la naawe falan nekko ko ca ko laale gut buñ ko xayma nañ ko xayma ba mu ko laale gut Mbakke bi nga ko laalee amatul xayma kenn mënatu ko jënd kon Cheikh Ibrahima daa sori fa mu toll dafa sori moo tax sëñ Ba waxoon Cheikh Issa jenn ne ko Issa mu ne ko Mbakke mu ne maa jigéen ñoo ñu ñu géer mi du ngeen ci denc mu ne ko ah denc guddee Mbakke sëñ Tuubaa ne Seex Isaa bu leen ci denc mukk de jigéen ñooñu ñuy wax gërimi ku ci denc ku de wël bi ja ak dël ja kenn benn lay doon ku dul Ibra Faal ku dul Ibra Faal Ibra Faal nag sànni naa ko foo xam ne dafa xatar bi koo woon jëm si suuf ba ba addinay tukki du laal suuf du agsi ci suuf kooku mooy Cheikh Ibra Fall moo jeex takk ci Serigne Touba ci sax ak ci baatin Serigne bi rek la bëgg genn bëgg la am muy Serigne bi amul ñaari bëgg amul ñetti bëgg sëriñ bi rek la bëgg moo tax li sëriñ bi yor lépp mu jox ko ko ndax sama sang ba di sëñ Mor Bay Cissé noonu na ma sëñ Tuubaa amul yaar lu baax lu ne see moo ma ko wax ne ma sëñ Tuubaa lenn la am de mooy lu baax yorut lu baax amul lu ne baax lu baax loolu nag ci lay jox doom bi mu jur waaye ci lay jox taalibe bi itam kon loolu nag ci la jox Cheikh maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Muridiina ba mu feesal ci saayir beesal ci moo tax sëñ Moussa ka ne si aba ba mu taalee ba leer ga jolli mu xam ne kuy wàlli yi def daa wàlli mu dal di tal Cheikh Ibra lamp bi yor wi mu dalee jiit yi ndar di dindi buur bi lan la buunoon booba yàlla buunoon nañ yàlla buunoon nañ rasulullah sallallahu alayhi wasallam buunoon nañ ak taalibe te lu dul ak taalibe ak taalibe bu gën tiiri dañoo wax ne tiyaatu mi tabuuru wala tabuuru taatul adab wajjee xam-xam mu lam waaye soo jaayee teggin du lamb teggin nag mooy ak taalibe lu dul ak taalibe rek ak taalibe ku gën te ak taalibe rek ki ko xamal jàngal nu ko ba mën noo jëriñ mooy maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Muridiina yàlla na suñu borom taas ci barkeem te bàyyi fi njabootam gii fi nekk yàgg leen fi lool sëriñ Cheikh jëmb ak mboolem rakkam yi ak doom yi ak sët yi ak saat yi ak nun taalibe yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp yàlla na fi yàgg yàgg fi lool با سين ييري اغ جارك سيرن تبا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خاري جامنا بوك نتي انفيتي وسي مصطفى مباكي موم سيري عبد الاحد تيو تيو سيرن محمد المرتقى اك جوتو سيرن تيو ييب بوك نتي انفيتي وسي مصطفى موم سيري سيد مختار تيو نا في اك تيو وا غوم بي ييب بوك نتي انفيتي و نيت ليغا خامتاني ньоف ليغي تي كسو شيخ جومبال دي سيرن اسفاد يدي مو اندك سيرن خديجه يام تيو نا تيو نا في تيو سيرن شيخ شيخ bokk na ci it ñi fi teew sëriñ Fallou Fall moom sëñ Dame Fall Saliou waaye bokk na ci ñi fi teew sëriñ Ousseynou Fall bàyyi ko sëriñ Assane Fall moom xalifa Daaru Xafoor bokk na ci ñi nga xamante ni teew nañ fi sëriñ moom sëñ Abdoul Ahad moom it teew na fi jóge na fi léegi moom it koy sant bu baax bokk na ci ñi nga xamante ni teew na fi sëriñ Amdi Diorin moom it teew na fi waaye sëriñ Amdi Modou Mbenda tamit yor na fi doom di Serigne Gunda moom it teew na fi bokk na ci ñi nga xamante ni teew na fi ba tey sëriñ Ndi Ñang imam moom it teew na fi mi ngi ci jotaay bi moom it ñu ngi bu baax di ko gërëm bokk na ci ñi nga xamante ni teew na fi ba tey mboolem ñi nga xamante ni teew na bokk na ci nga xamante ni moo fi teewal gouverneur ñu yebal action moom it ñu teew ànd ak administration bi nga xamante ni yoon nekk njëriñ bokk na ci ñi nga xamante ni tamit teew na fi Serigne Aziz Fall moom Serigne moom Aminta Fall teewal fi sëñ Fallu ak njabootu Serigne Mouhamadou Aminta Fall yëpp ñoo ñëpp ñoo fi teewoon ci ay kilifa bokk na ci sappoor yi nga xamante ni teew nañ fi ànd ak préfet ak waa district sanitaire yi nga xamante ni teew nañ fi ak ak police ñoom ñëpp teew bis bi soxna saa sant bu baax te di leen gërëm kon ñooñu ñoo fi ci ay kilifa bokk na ci ñi fi teewoo tey ci waaye lu kilifa yi dañuy wax Serigne Mbacke di wóolale di xarit soxna si directeur hôtel moom teew na ñu ngi ci jotaay bi soxna sant bu baax te du gërëm ñoo fi teewoon ci kilifa di soxna Mbayta Mbay ak daayira bi nga xamante ni ñoo bàyyi ko Dakar Sicap Mbao ñoom it teew nañ ci bis bi na ci daayira yi njaaree yi nga xamante ni ñu ngi fi ñëpp kenn ko tuddoon noonu leen sant waaye ñoom ñëpp teew nañ kenn desul daayira soxna jaar yi fi nekk yëpp teew nañ kon ñu ngi yamale foofu kàddu gi di jox sëriñ am di ndaw teew na fi yu ko fi teewal di sëriñ làmp ndaw doomam ñooñu ñëpp ñoo teew na fi ak njabootu ba Cheikh Ndaw gi yëpp kon soxna saa ngi sant ñëpp di ci nuyoo bi soxna Awa Gaye bintu Assou Fall surtout maam Cheikh Ibra Fall di ko nuyu nuyu bu tedd di ko ñaanal jataay bii nga xam ni jigéen ko woote woote ngir di fàttaliku ay waajuram ak i maamam li nga xam ni tax nañ ko mu doon royuwaay président dafa ni man de yàlla daf ma dimbale ba ginnaaw biñ ma falaatee ci bopp réew mi bii jotaay bokk ci jotaay yi nga xam ni jigéen woote na ko ma amul yéene lool delloo njukkal jigéen ñi Sénégal bon nag jotaayu tey bi jotaay bu am solo la ci président Macky Sall soxna Awa président Macky dafa ni réew mi taxawaayu jigéen ñi dafay doon taxawaay bu ñëpp ràññee liggéey rek lañu ñu xam liggéey dong la ñu gëm te lii suqali réew mi bu ñu génne woon jën ñi daanaka xam nañ réew mi day suux loolu moom moo waral mu am lu mu naan loo xam ni da cee beral loxo jigéen bu ngeen xoolee bourse de sécurité familiale bourse yi ci loxo jigéen yi lay am boo xoolee financement bi nga xam ni mi ngi ko tàmbali daaw di ko financer ndaw yi ak jigéen ñi la mu ci beralee loxo jigéen ñi mooy dafa ni kii xaalis bi du ñu ko jox lu dul ndaw ak cër ndaw nag dafa am âge boo demee ba àgg fanweeri at ak juróom ñu ne bu weesoo lool dootuloo ndaw bon nag ku weesu yooyu at ci ndaw te di góor munoo am ci boobu financement wante mu ni jigéen moom appalum ko benn at at bu mu mënti am bu ñëwee am projet bu wala nañ ko financé mu liggéey ndax xam nañu ni pas-pas bi nekk ci ñoom ak at yu ñu mënti am boo leen joxee fulla ak fayda rek lañ ciy def lañ ko def dafa bere loxo jigéen ndax ni jigéen taxawee ci réew mi di nuyu soxna Awa je mi waral bis te liguez ci wéyal liggéey bu way daan liggéey muy soxna astu di magal mamam di nuyu préfet mi fi monsieur fi administration téwal fi président de la république di nuyu sama bokki kër Cheikh Ibra yek kër seigne touba yi fi tew yep di nuyu wa bass bi yep soxna as soxna Awa ñoo ngi lay andil nuyu seigne Cheikh jëmb ak cantam ni nga ko daan def rek waxtu bis bi ak siwan mom dang ko daan beral walam yonne ko ko te moom lu fi war a luñ fi war a def lu ne rek moom la waroon ndax moo fi Cheikh Ibra moo fi sëñ Moustapha Fall moo fi Soxna Astu kon li ngay def lépp jàpp na ne moom nga koy defal mi ngi lay ñaan nga yàgg koo def te daje cee ngërëmal way jur yi sëñam di ñoo ngi sant bu baax Fall di ñaan yooyu itam sa borom yokk saw fan li nga def rafet na lool ndax nee nañ yaa ñu fi jiitu yendu fi loolu ak bokk noonu dong la fa doxal dox rek ak wax soxna si nag moom dañ koy fay rek lu ko waaye defal da nga koy fay asalaamaaleykum wa rahmatulah. sëñ as waxal wax ju rafet la yoo xam ni kenn mu ci teggi dara na ngeen ci góor bu baax. nan bokk déglu ndax ki nga xam ne moo la fi di Seex Ibra danoo war a fas yéene góorgóorlu fopp sunuy xel ak sunuy xalaat ak suñu pëstéef yépp teg ko ci tànkam te bañ cee mooy dara ndax moo di dimbali nit ku defee nag mën ngaa jëriñu doo sonn dangaa nax sa bopp ku bëgg lu baax da ngay sonn lu baax moom jëf yombul tey yombul boo liggéey ku la ko wax da lay nax ku ñëw fi yow di la woye di la woyefal lu baax génnal ci moom da lay nax lu baax yombul kenn mënu ko am te sonnoo ku seet fi Cheikh Ibrahima Fall jaar Sëñ Tuubaa jaar fi wala nga wëlbatiku doonu taalibe bi fas yéene nii fa jaar xanaa fas yéene boo xëyee soo rafet lekk sa lu neex tën tënaa Cheikh du sotti nan fas yéene liggéeyal Cheikh Ibrahima damaa bëgg ngeen xam ne suñ jëmm yii ba nu yàlla di boole Sëñ Tuubaa bu jox nu Cheikh Ibrahima nu nekk ci liggéeyal koo taxoon lu nekk fa waaye tëdd caaxaan ak foo taxul lu nekk ci dañ ci fas yéene góorgóorlu jëmbat suñuy soxla su suñu lépp soxnaa ma nag yow man lu ma ci wax dara du bàyyi na la sama am Cheikh Ibrahima waaw yàlla la jàppale te dimbali la yàlla la jàppale te dimbali la ndax gis nañ li nga def gis nañ li nga dox gis nañ li nga wax gis nañ sa jëf kon mënuñoo wax lu dul sant la gërëm la waaw di la ñaaral nga yàgg fi yéen mbooloo mi itam képp koo xam ne da nga fee ñëwoon te yàlla rek a tax nga ñëw fi ak sëñ ak soxla si la ngay yàlla na nga ko am bu dee biir yàlla la ko yàlla defal bu dee aajo yàlla la ko yàlla fajal bu dee wërsëg yàlla la ko yàlla defal yàlla na yàlla defal fan gudd ak biir barki Cheikh Ibrahima bu fi tax a daje lool jërë ngeen jëf Fall nag moom mbiram noonu la demee kon daal su ko defee comme jotaay bi yàgg na te soxna saa ngi boobaak léegi rek mu ngi toog di teewlu turu yàlla wi ñun ñëpp dañuy àndandoo déglu su ko defee mu waaw mu mu bu ko defee mu daal di ñuy dolli ci Cheikh Ibra Fall ak soxna Assu mi nga xam ne moo waral moo waral guddi gii di doomi Cheikh Ibra Fall gane ganee jamono fii ci njariñ di mbokkum Cheikh Ibra di xeetam ndax njaay Ndiaye Fatma soxna njaay Njare ñoo ñoo ko meññi te ñoo sëy na bu Ndiaye bokk lépp maa la wax loolu Cheikh Ibrahima ndeyam Cheikh Ibrahima baayam maa la wax loolu Cheikh Ibrahima ndeyam Cheikh Ibrahima baayam xanaa xamoo ne li ñu doon wax naan maam Cheikh Ibrahima Fall daa dem bàyyi ay bokkam maanaam ak yu njëkk yi ñu daan wax rek ba ñuy gone dañu ko nettali. ay ñu dem njare ñu naan ko ay subbooxun yooyu noonu xeet yooyu yooyu dégg ko ci nopp sax yàlla nañ ci yàlla musal yooyu daan nañ ko dégg ay jamono waaye yooyu loolu loolu loolu sama ma weddi bañ xamee ne Cheikh Ibra Fall jox ko doomi nijaayam kay <laughs> loolu wax jooju toxu moom ah waaw Njaay njare kay kon dafay mel ne kon dafa am lool gis nga loo fi dégg ñu di ko nettali te wérul na jamonoy dox da gis ñu faxas ko ba mu set li Cheikh Ibra moom day wal ba mu mokk te du dégg kàndang mhm. waaw lañ fa daan dégg démb ak barki démb yëpp tey buñ dégloo soxna sii jamono jamono yii ñuy waxtaan ak moom ak waxtaan yii ñu def internet moo xam télévision yëpp soxna si ci boppam mi ngi ñuy dimbali ci Cheikh Ibra loo xam ne ñun sant nañ ci yàlla ndax ñun xam-xamu nuy dundal fi ne saa bu nuy waxtaan ak moom dañuy noos moom xam na loolu billaahi saa bu saa bu nuy waxtaan ak moom dañuy noos ndax ñoom Cheikh Ibrahima ñuy dundal te moom xam na loolu moom te fillaahi wallaahi lancim ne gis nga yat wa samam dóor ci dem Demba War Sall door ko ci xolub Jóori Joor Ndeela dóor ko ci xolub Njoxam Wore Màngara muy Moodu Màngara dóor ko ci xolub Mbaar Jóor Siga ci njukki maa la wax loolu de nga xam ne gànnaar la fekk Sëñ tubaa na ko àjjana na ak jaamu yàlla la bëgg Sëñ Tuubaa na ko dellul fa nga bàyyi koon toog diglu ma dekete Cheikh Ibrahima ko nar a dimbali Cheikh Ibrahima dox ba ñëw njukki toog ca Dakar am ñu ñëw ne mbar am na jaay yalla duñ seen ci tat Dakar bi mu ne mbaar saa waajo la waxon da ko def bim ñew ñëwee nuyu Cheikh Fall mu ne ko noo tudd mu ne ko mbar jóor siga mu ne ko tudd na yi Fall mbar bu ngalé mu naw bu tawee mu sen waaw la wax loolu Cheikh ibrahim def ko lu ñuy wax toroxal bur Cheikh ibrahim ay ci buri motax bur tax buur bu mës a rek Cheikh ibrahim Fall sëñ Tuubaa yut leen ko Cheikh Fall mo xam ak ceeb mo man ci Cheikh ibrahim man ci doomi soxna yi dara man ci ceddo yi dara maa la wax loolu de bu leen defee ne ceddo du la dajale won de maa la wax loolu ndax maam Khady Sarr rek soxna Fat Sylla Mañaaw ay ponk la leen jur kii Cheikh Ibra Sarr Njaañee bàyyam kii sëñ Mañaaw Sylla ko jur Cheikh Ibra dajale na leen fii waxuma laak nag buur yee nga xam ne nag moom ah, ñoom leneen lañ ñoom xam nga ne moos ne ci nguur ak ni mu neexee nga xëy xëy bàyyi ko di toppee waaye Cheikh Ibra jën ci jiitu nag <laughs> moo leen ci jiitu de xanaa xamu leen ne dammel moom ci laaj joro sant Diop waaye sa maam rek ka doon dammel ci Sénégal sant nañ bu baax itam sant naa lu baax Fall ndax fa nga nekkoon sori nag fii ndax loo xam ne danga doog juróom-ñaari waxtu soog ak si sori nga waaye loolu yëpp xëy na Cheikh la ko jaral du sama jëmm ji waaye nag maa ngi lay boole Cheikh Ibra turu yàlla wi nga am ci yàlla am ci yont bi am ci sëñ Bamba waaye jël Cheikh Rafal moom turu yàlla wi nag moom fayal la boppam moom koy ñaan di ko ñaan képp ku fi nekk ndax nit moom bu fekkee motu ko te nga bëgg koo matal day métti waaye ndox bi ma matalee te man Cheikh ma di booy la Cheikh man man Cheikh rek laa teg sama kanam <laughs> matuma dara waaye mën naa gëm ne kenn gënu maa bëgg Cheikh nag kooku kooku du ko bëgg te du ma ko nangu waaye xam nga yow léegi bi nga tuddee nag kër maam Faty yaa xam kër Faty lu tax nga bàyyi fa kër maam soxna Fall Mbaar Mbaar si gaa ko jur gi danga bokk ba lu tax nga ba hmm? fa maam xarit yaay sëñ Mbàkke xarit Jóob ñoo dend di ah <laughs> ma déggee lu sa kër maam yi sa ko yooyu rek mu jaaxal ma lool ah ak ah, kër maam Demba Sylla lu tax ba ko te mu ngi volontaire bi déet <laughs> waaw bisimilah ajale na ñaan. na na ñëpp tàllal wax amin yéen maa ngi leen sant bu baax nag ndax nag lu ngeen ma di wax bu fi seen patron ñëwee yéen ñii ko fi indi du man mi maa ko fi indi nee na Cheikh Ra ko fi indi wax na dëgg ndax da koo tibbal mm-hmm. waaw dafa maroodi rek ba jàll nag mm-hmm. waaw kon boo tibbalee dana mën a geesuwaat xool nu mm-hmm. taxaw fii tam nag mm-hmm. yéen ña fa nekk nekk Baay Faal yéen ñu fa jubbandu suñu jëmi bopp yi ba lu fa bëgg am am ko fa man sama tànk maa fa naa dem def avant première fii ci Mbàkke ba mu nekkee Touba Sandaga yéen it yéen ma tàggale dem di joxe avant première ndax man Cheikh Ibrahima moo tax di duggi ba xaw ma ñaata at yoo xam ne du ma dem marché waaye nag màggal jotee maay dugg lépp sama loxol bopp lii ma ko duggala kenn ndax ma bëggul kenn problème ci tuyaaba bi kon maa ngi leen sant leen gërëm di ñaan yàlla li ngeen fa yor te Cheikh tax yàlla ni toog ba ubbi leen seen yëfi ndax nit nag wax dëgg yàlla suñu yëfi bopp la ñaan Cheikh Ibra Fall waaw leen bopp ba leen soxlaa jot leen bu leen soxaa du ngeen yàkkamti ci barke maam Cheikh rek jox leen ay warikaay ndax itam ci la bokk ubbi wërsëg jox leen ko millions it ngeen am ci nag ndax itam wér gi ak wërsëg wi dafa war a ànd ndax matériel dañ koy defar matériel boo defar mu maxe hmm, matériel lañ koy defar kon naa nooy matériel Sëriñ Tuubaa nag noonu matériel Seex Rafaa lañu nañuy raxas ba nu set dañu jox wërsëg ba nu doyal góor yi mu jox leen jigéen jongoma ci barke maam Seex Rafaa ak yu rafet yàlla mën na ko suñu yàlla na ko def laa ilaaha illallaah yagaba laa ilaaha إلا الله يبال أمني بالديخ مدفع بال أمني بال يا مدبورم لا إله إلا الله بال لا بال إلا الله بودلو نكتور ما رينا بنجاي ba ma ba ca réew réew ndimbal la lay ñaan yërmande faal doole biir faal ak biite